ma doon yeggalee euh, fi ma daanelee commencé ko studio bi ma nekk nii tey mën naa ne mooy sama bureau comme dama yor association active pour le développement social du Sénégal fekkee ma ci boole ba léegi la tuddu di jàppale financement jigéen ñi jigéen ñëpp yu bëgg a liggéey ah parce que góor ñi ñun yu yoratuñu dara mënatuñu dara tey jigéen ñi ñoo yor kër yi bu ñu dàqee xale yi école sax yaay la ñuy wax dàll bu daggee sax yaay la ñuy wax adduwaa sa crée lépp yaay la ñuy fekk bàyyi xëy na dem des fois mu manqué gaz jeex ci liggante bi yaay la ñuy wax ñooy fecc seen la sër dem jëndi gaz chargé gaz bi kon suñu yaay yooyu ak suñu jarbaat yi suñu jabar yi maa leen di jàppale man Birahim di leen jàppale ci financement banque yi ba ñu accès au crédit aw ma lu ma leen jox mën naa leen accès ba ñu am tey li ñu am tey ba ba li ba li ñu bëgg ñu am ko te fii mooy sama bureau studio la nag waaw ah, day jaay ay album day jaay ay clé day def ay reportage ay xew ay cérémonie yëpp maas mi tey boo gisee ma nekk fi yaakaar naa def ma yaatal yaayam dénk ma ko mu dëkk parcelle unité mais fii unité la en face cinéma bi ku bëgg a defar say cérémonie def lépp te noonu la baaxee nag yaru am diine ak am lislaam waaw lu boo nekkoon tey lii laa am 90 mille laa am wala nii mun la waa garaawul seetal loo ma làmb Alioune Sall xam ko nenn Fatoumata Tall di ministre de la jeunesse xam ko mu leen doon defal ay reportage guddeeg bëccëg maas daal mi ngi noonu maas sama maas la daal moom laay tiitaroo daal wax dëgg yàlla kon boog studio bi ma nekk nii te studio photo la day jaay ay album day jaay lu nekk macha allah kon di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal ne xale bu am jom am na kër ma nga ba Touba bàyyi fa ay ay njabootam chaque jour mu leen di nemmeeku di leen yónni xiifuñu maruñu te keneen ku nekk ci moom tamit doo xiif doo mor fii tamit boolam bu ñëwee ñëpp ci xéwalu xéewal gi ñëpp ciy bokk day jël xéewal gi seen les ne ma eh père demal jëbbal ko xale yi waay kon yal na ko yàlla dolli sutura defal ko jàmm parce que tamit mënuñoo ñëw ba fii émission bi passé te du ma sant sama doom ji ko di ko sant di ko gërëm di ko wax ne ko yal na yàlla guddal fanam wér yow maas yow maas mi tamit bala nga ñëw si man bala may ñëw si man euh, père parce que combat bi fi mu nii yaa ngi wax euh, ci ci ci entre ñoom ñaar Modou ama attaquant la Modou défenseur la mais défenseur la boo xam ne du du dóor ci vide ah te te dafa am force de frappe te Ama yaa ngi wax ne Ama na mën a encaisser euh, te Ama ñu gis ne euh, ragalut ragalut ragalut ragalut ragalut dóor maam maam ñeme na encaisser parce que combat ak Malick ñaar jël na ay coups yoo xam si bu doon keneen euh, mu mu def na waaw des fois coups yi du benn des fois force frappe yi du benn ku xam Ama balde xam ne jàmbaaru fàkk tëdd la parce que man fi mu nekk nii ndey ji seex la njaaxaanaay laa war a tëddee du sama mbër mooy bëre damay def damay damay def décortication damay décortiquer damay analyser ay analise la ñu ma lay xamal ne rek ama fit bi mi ngi ci moom mën a bëre bi mi ngi ci moom te néewul doole te mën na xeex ñeenti yooyu la boole Modou tamit am na doole mën na bëre mën na dóor te day topp action te dóoram boo muy dóor ama na sóoraale dara stratégie laay wax de biir géew bi laay wax de buñ la gungee accompagnateur yi ba mu des dernière personne bi ba solo la protège bi ba solo la protège dent bi sa kër si bu la ko sololee day dem ta sees ba toog naan la defal li bu boobaa xoolootoo dara bul bëre public xoolal sa adversaire ñu ni boo yoree paaka ngay xeex ak nit ki mu yor paaka te yow yoroo ngànnaay nga bañ paaka bi lal la nga bañ ngànnaay bi lal la xoolal paaka bi moo lay jam du waa ji moo lay jam xoolal paaka bi bul xool waaji boo xoolee waaji rek paaka bi rey la paaka bi yegsi mais boo xoolee paaka bi paaka bi du la laal fu mu tourné di nga ko gis moo tax ama na xool booy bi na ko bàyyi xel na ko jëx cër na ko respecté xam ne ne ak lu bon bon moo ko jiitu ci làmb ak lu bon bon moo yor li nga xam ni neexuta a foqati muy le roi des ren tiitir bi neexut a foxati. su ma bëgg Ama changé stratégie mu doon bëree. parce que Ama ñëpp xan ne bu wàccee loxoom ak buy àgg si benn lay doon. oh Modou Lo fi muy balancé lay calculer loolu maa ngi koy jàngal Ama un deux day calculer booy wàccee ci diggante wàcce bi yëkkati bi fa la lay jamee te bu la jamee mën na la déstabiliser te bu ko déstabiliser day song te bu ñu songi bëree day am te bu bëree amee suuf la ñuy yegg. Hmm? Hmm, hmm. ah bu ñu yeggee suuf nag foofu nag comme la ma doon wax rek kenn xamul fu muy demee maas reenu ñàmbi la ay yuuxu mën na jëpp foo xam ne foogee wuñ ko fa woon mais xam ne daal tàkkusaan googu daal. ñaari bërikat lañ de. ñaari bërikat lañu te ma wax la dara fii laa la koy waxee dinga nga ñëwaat fii wala dinga nga feneen dinañ ko defaat wala sunu làmb may nuy dembale ma leen di sant dina ak euh, Assane Waalo maa ngi leen di nuyu di ñoo ñëw Ibra Kane ñoo ñooñu xam ne ñoo ñuy siiwal ñoo ñuy defal lépp ak ñoom ba ñoom ñoom ñoom Babacar macha allah ñoom Aysatu ñu ngi leen di ziar leen sant bu baax waaw ma wax ne keroog di nga ñëwaat fii woo ma combat bi du yàgg xam nga li tax du yàgg kii day attaqué te kii du dellu ginnaaw kon bu kii attaqué kii du dellu ginnaaw dox dajal la combat bi du ma deux minutes xam nga li tax du ma deux minutes Modou Lo combat durée la man am na ci expérience Ama mënul combat durée longue durée mënu ko looloo ko daan ci guy gi moo ko daan ci nees mais bu combat bi gaawee mën na ci am dara lu bari sax parce que doole jaa waaw doole jaa fi xam-xam baa ngi fi bëre baa ngi fi mën nañ ci am lu bari mais ah foo ko déggee mais rek yaa pourquoi le mot mais mais attention mais attention mais c'est un pronom indéfini kenn mënu ko définir mais lan la fay fekk ku dul dellu ginnaaw te il frappe dans le vide te dóoram baaxul te mën na bëre waaw maas foofu. boo boo boo doon jël boo doon jël xeex bi ñoom ñaar ci côté xeex. côté xeex kan moo gën a fort ci xeex. bu ma doon def analyse pourcentage bu ñu jëlee quatre vingt pour cent ñu yemale ko quatre vingt pour cent pas pour cent parce que cent pour cent kenn mënut ko yemale yàlla rek moo am cent pour cent. mën nañ ne soixante pour cent cinquante pour cent quatre vingt pour mais cent pour cent yi may dégg yàlla moom moom cent pour cent mu matale lépp yàlla rek la mais bu ne quatre vingt pour cent Modou Lo na am soixante dix Ama am cinquante cinq. lu leer laa wax ci xeex c'est un bagarreur Modou Lo mës nga gis Modou Lo ñaare boo compté mu dem ardo lu mat cinq fois ci làmb seetlu nga ko wala quatre fois Modou Lo ñu ne arrêté nañ combat Modou dem na ardo mbër tu touché na ko touché bi tax ñuy mu muy dem armo ardo ne mu musul dem ardo de ndax Modou Lo mës na dem ardo lu mat trois fois wala quatre fois ku dul dem ardo seetlu leen ko ko ay coup du ko gaaw a laal parce que combat rapproché combat distance moo yóbbu ni nit distance moo yóbbu nit ardo mais comme combat rapproché du yóbbu nit ardo mais gis ne ah, ah, Ama ñu gis ne ñu gis ah. la dóor foofu di nga dem ardo mais ñu gis ne Ama moom it ay làmbam boo xoolee ay ardo yëpp du si am parce que bu ardo bi siflee Barton la fu mu la jàpp làmb ji jeex. moom laa moom laa la wax nii mas dama ne Ama c'est un attaquant moo tax combat bi dina gaaw parce que Ama mën nañ ko bañ a toucher dóor sax mën na bana am dóor ñu ni dóor bunt la rek dóor du bëre bu dóor bunt la rek xale yi dañu bëgg a xeex jël xeex bi def ko def ko def ko privilège xeex bi mais Ama ñoom ñaar ñëpp combat rapproché la ñuy def parce que combat distance baaxul ci ñoom ñaar ñëpp baaxul ci ñoom parce que koo dóor mu fayu la ñu wax de dóor fayu la ñu wax de amaa am na force de frappe xale la demagul feen yàqul boppam mais bu ñu xeexee bu ñu xeexee ba gàllaa ji tas gàllaa ji dagg ki ëpp avantage xe Modou Lo la war doon ci sama gis-gis analyse rek la ñuy wax ñeneen li ci nag à vous de juger ou bien à toi de juger ou bien à vous de juger làmmangoog seen seen gis ñoom ñaar ñu xeex dóor mu daanu am ci. dóor mu daanu dóor mu daanu point la parce que ay siddit la. moo tax ce que ñoom ñaar bu ñu xeexee bagaar est-ce que seen ko ci dóor mu daanu. waaw mën naa am nañ ko sóoraale bu baax dóor mu daanu mën naa am xam nga li tax muy am xam nga li tax muy am parce que dañ ne dóor mu daanu. bu kuuba dalee ñu jël le point neer lemu da daanu kon dóor mu daanu mën na am nañ ko sooraale dóor mu daanu mën na am dóor mu daanu lemu yaa ko waxal sa ba dañ ne dóor mu daanu ndax mën na dóor mu daanu mën na buñ ko exclure ci làmb ci combat bi mën na de mën na am de dóor mu daanu mën na am parce que da nga ne dóor bu ñu dóoree ci point am na fam poin poin la bu ñu la dóoree ci poin boo daanoo ba noppi ama seen nu mu tuttul xoolal nu mu toll bi ko Modou Lo di dóor mu daanu parce que Modou dafa xam point loolu laay sóoraale booy bi ne ko mu def ndànk forme bi Eumeu Sène indi woon yaakaar naa ne bu ko amaa indi wala dina méngoog moom bon moo tax ma ne mu daanu mën na am ba kaw bay nelaw buñ la yowee nga foog salaatu nañu mën na am de nañ ko sóoraale ci ñaari côté yëpp nag laa wax nag amaa mën na ko dóor mu daanu de parce que am na rallonge bi am na doole bi seen nga ama xool nga ko nii attention seen le travail paye moo tax ma na la combat bi di yomb barke Rasulullah ngeen Père Birahim Seck li mu wax si combat bi nga xam si moo jëm si Modou Lo ak Ama Baldé nuyu amateur làmb yëpp ah, euh, di nuyu ki nga xam ne moom mooy Fall bu caatu yaraax waaye di nuyu Def Live borom Canada moom mi soppi SBT Média la euh, di nuyu ki nga xam si ne nii moom moo di Ngañ Diop ah, Ngañ Diop Ngañ Demba Diop ah, euh, borom borom borom borom Bawal Ngañ Demba Diop sama xarit borom Pikine tali bu mag mbokkam ndeyam xaadim xaadim baaxee mbokkam ndeyam xaadim di ko siyaara baax a baax a baax waaye nag di nuyu kenn koo xam si ni kenn la ci man muy Naas Diop Naas Diop di ko ñaanal baax gudd fan ak wér moom kenn la ci man su ma ko tuddee tudd naa lava mondial 1 yëpp nuyu Boy Ndiaye nuyu Vieux nuyu Bokande nuyu euh, ñi ki nga xam si moom mooy Amath nuyu Ndiaye ah, nuyu ñoom MC ah, euh, waa mondial 1 yëpp ñoom américain ñoom Issa Ndiaye ñoom ñëpp maa leen bégee baax baax dañ jox seen wàccuwaay mais père euh, ñu li ñu ma leen ci waxtu jeex na ba nu xaabaabal mais ki ñu invité moo toll émission bi ni ñu ko bëggee woon dëgg dëgg dëgg it am na am ay kii parce que Pierre moom mi ngi noonu rek <laughs> xam naa tey gars yi dañ ne gars yi dañ ne gars yi ma mais mais ki ma invité daf daf maa sut ba pare ëpp ma lees moo tax noonu a ñëw rek samp niil ñu bàyyi la a baax ndax li ñu sa temps bëri na ñu sant la gërëm lu baax la yàlla gudd fan ak euh, bi bira seen euh, yéen bi yàlla na oyof seen papa ñu ngi baax a baax ndax yóbbu nga làmb foo xam si ni tey macha allah kenn foogu ko woon gàcce nga laama Alioune Sarr waaye di jaajëfal ñi nga xam si ni ñoom ñooy amateurs euh, buñ ko waxee rek tudd ci alaaji duñ daan jékkoo day yóbbaale ñu sa def ñëpp waaye di nuyu seen amateur ah, muy góorandooy di nuyu ñi nga xam si ni ñoom ñooy ménagère bu ñu tuddee père Babou ah, day yóbbaale ñu si def ñëpp waaye bu nuyoo ah, ñi nga la nga tàggu mbokki internet waaw fa tabarakallah jazaawlaana xeeran macha macha allah di nuyu di tàmbale nuyoo nag ki nga xam ne moo ma dalal waaw wax dëgg yàlla woo a ma di maas SBT TV di ñaan yàlla seen site bi seen chaîne bi waa rafax naa ma kaanan aliyan ñu dégg ko fa sori sori sori bi ngay ñëw laa jàng naafi la jàng sóoratu yaasin yaa taxoon ma doon jàng duwaawu yaasin bi jàngal la ko ah, ku ko ci fekkee ak ku ko fekkee wu lépp ku yooyu eh, an eh, ashadu an laa ilaha illallah ashadu muhammadu rasulullah nga fekkee ci ñaan gi ñaan gi dal la di nuyu nag ñi nga xam ni tey fii laa nekk tey di nuy fi ma dëkk di nuyu sama njaboot di nuyu ki nga xam ni mooy sunu maire des maires monsieur Alioune Sall nga xam ne wéeruwaay la ci ci ñun mooy sunu wéeruwaay nuyu le coordinateur communal des sages di Wuri Diallo mu sama coordinateur communal di ko nuyu mu def ma secretaire général des sages de la commune de Golf Sud sage mooy mag boo nee sage rek jégal na yow sage da ngay te mag day yoru di jàppale xale yi di jàppale jigéen ñi di nuyu ki nga xam ni mooy ki ma dalal tey fii tey muy Mass Samba Mass di sama doom Mass mbay di ko sant di ko gërëm studio Mass fii lañu defee lépp di nuyu ni nga xam ni nag mooy waa axlu làmb di nuyu la le comité national de gestion di nuyu euh, di nuyu di nuyu suñu président Bira Bira Sène di ko ñaanal lii mu commencé bisimilahi rahmaani rahim yàlla na ko jeexale alhamdulilah di nuyu ñambe ñambe ñambe Diop ñu ngi lay nuyu administrative chargé tout ce qui est administration ñu koy ñaan di nuy xalifa di nuyu xalifa de passage Palmarin ki nga xam ne moo njëkk jël sama récépissé dalal ma doomam bi fi nekk wuutu ko di Max Maguette ma koy sant di ko gërëm Maguette saw di ko sant di ko gërëm xale bu yaru xale bu baax a ngoog xale bu waa CNG wala jàppale bu baax ma nga fa guddi ma nga fa bëccëg affiliation moom la lépp moom la max kon max dañ lay ñaanal euh, yal na yàlla sa sa taxawaay yàgg di ñaanal nag waa ARELS ah ARELS nag laa bokk di ñaanal ARELS di ñaanal suñu président bi nga xam ni suñu président bi nga xam ni moom lañ gëm moom lañ wóolu di nuyu suñu secrétaire général ki nga xam ni mooy mooy euh, mooy kii Mamadou Mamadou Mbaye di nuyu ki nga xam ni mooy le trésorier di di Cheikh Tidiane Euh, maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu première vice présidente Jaxate Jaxate maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax moom sama jumeau la sama seex la waa AREELS daal bu ma jëlee nuyoo bi daal yaakaar naa ne teg ko ci loxo Malick Malick dina ko wasaare comme ni ko sama seex di waxee des des premiers des affiliés jusqu'au dernier des affiliés di nuyu axlu làmb yëpp di la nuyu di nuyu ne ah di nuyu écurie yëpp nag. vraiment rax ci dollu sama mbër yi nga xam ni bëre nañu ba dem États-Unis muy jëf jël ñoom Bazouka di nuyu Cartouche bi nga xam ni ma nga ba Marseille ma nga Paris di nuyu sama coach yi di nuyu sama directeur technique Cheikh Ibra macha allah di nuyu Boy Pambal bi nga xam ni ak ñoom Biddéew ñoo fi nekk tey di nuyu xale boo xam ne nag nañ ko bàyyi xel mi ngi ñëw ci kanam ku ñëw Aliou maa ngi koy defar di nuyu Ama macha allah su ma yaakaar naa sama mbëri dinañ dama ji di nuyu Boy Johnson xale bu xale bu ñu waaw xale bu ñu war a bàyyi xel la ëllëg Boy Johnson macha allah di nuyu Aliou assurance ki nga xam ne moo fi nekk xale yi tey macha allah di gëm seen bopp di nuyu Malick coiffeur nga xam ne mi ngi may jàppale ci xale yi di yow 5 di du matin di leen yóbbu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyuwaat maas macha allah li nga ma defal ni tey lu rëy la. waaw lu la bett nag mën la nag mais nag di jégalu lu ci juum rek lu ma ci juum rek sama xel mu gàtt la rek ak loo loo xam ni. sama xel mu gàtt la ma ci jégalu lu ci baax nag ci baaxu borom bi la rek comme yàlla mooy baaxal fa tabarakallahu allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim dajee ak beneen euh, invité ak beneen champion ci SBT Média di jaajëfalaat bu baax a baax euh, sama turandoo di wax na sama émission tay bi nag moom moom particulièrement moom laa ko mooy muy Mass Mbaye nekk fii ci nga xam ne si moom mooy studio euh, nekk fii en face cinéma Unité di ko jaajëfal baax di jaajëfal képp koo xam ne njabootam la du nuyu nag képp koo xam si nii yaa ngi nekk Touba di leen jox seen wàccuwaay baax a baax a baax ndax Mass waa Touba la maa ngi koy jaajëfal baax di leen jox dig dajee ak beneen invité ak beneen ndaanaan ci SBT Média jërë ngeen